détail dinañ ko am waaye itam dinañ ci teewlu ay kàngam yu am solo yoo xamante ne rek seen xel màcc na lool ci wàllum làmb ñoom ñëpp ñu daal di ciy ci ay kàddu ñoom ñëpp ñu andi ci ay leeral ci li ni mel ci li nga xamante ne rek moom moo di bile combat mu nekk nag combat bu spécial boo xamante ne rek intervalle bu ngeen ma ko mën a maye ma tëjaale ko mu di Modou ak Siteu mu nekk nag combat de l'année wala sax combat du siècle ci li nga xam ne rek moom moo di couronne boobee nga xamante ne am na mu di roi des arènes ci diggante Modou ak Siteu ndax euh, Modou dafay conserver li nga xamante ne moo di sa couronne est-ce que itam ki nga xamante ni moom moo di sita dafay daal di wéy rek moom Turkinda wéyandi foofee nga xamante ne rek moom moo di ca diwaanu euh, parcelle 1 ba 26 nag nekk na loo xamante ne rek lu nar a doy la ci diggante ñaari mbër yi nga xamante ne rek bari nañ ay soppe réew mi bëgg nañ leen Modou Lo Modou xarañ loo comme niñ koy woowee ak ki nga xamante ne rek moom moo di Turkinda bi di euh, Siteu combat bu nar a neex Quelle le 24 octobre novembre plutôt mu di ce dimanche incha allah ngeen àndi ceek TV HD te di len wax ni dara du len ci daal di ndax te legui rek dinañ weyandi buñu paré ci live bi rek djubal fofé nga xamantene modi municipal bu parcel moo xareñ lo fasiyene fas ak ñi nga xamantene ne ñoo di ay sopem ay fansam ay am di ci bilé combat nan la ko fasiyene wajal ci ban état forme la nek lolé lepp ay laaj la yo rek dafa dadi sampu samp ba tax ak lu ci mën ci am mu ngi diwaanu jàmbaar daal di koy taxawal dimanche 24. novembre Modou Xarañ Lo ak ki nga xamante ni rek moom moo di Siteu combat bu nar a neex ndax Siteu day jël couronne bi ndax Modou Lo day restreint taxaw fi mu taxaw ba tey loolee lépp nag laaj yu bari bare la yoo xamante ni rek ah, ku ci nekk rek yaa ngi ci yéy di ci yàbbi gis nañu ne Siteu bërki démb ca diwaanu Diofior nag foofu la daal di amalee li nga xamante ni rek moo di open press bi nag mu ngi donc nee na yox la jëli ko si ne da koy yox da koy daal di jëli da koy dóor mu daanu euh, donc nag nee nañ du nekkul ku ñuy door euh, mu daanu mu nekk nag mbir boo xamante ne combat bi lu ne mën na caa juddu ndax Modou Lo kat ñu ngi koy taxé di ibaadu dafa bàyyi gàllaaj et waaye gis nañ ñoom saa cawet nga gis nañ ki nga xamante ni rek euh, moo di saa Touba gis nañ ki nga xamante ne mooy Papis Xarañ Lo le grand retour de Papis Xarañ loo ko xam Papis xam ko ak Modou Lo récemment dañoo amoon coow waaye Papis na ci li nga xamante ne rek moom moo jëm ci combat combat Modou Lo ni mu ciy doxee chaque jour euh, serein ak calme bi nga xamné rek ñing koy gis ci wétam donc euh, combat bi nak dafa nar a ndax ndaxte Siteu commencé naa attaquer ki nga xamante modi bour di ak fadam donc ci li nga xamante rek né dalen déré dalen téré ñu dugg fofé nga xamante rek mom modi di ca jàmm ndax dinañ fa dugg nak jéggi na dayoo loolu buur géwél waaye ak lu ci mën ci am rek Siteu nak jamono gi ñene du may modlo yota yotaa man nag Siteu li tax mu défé open presse bi ci jof yor jaaxal na ma lool sax waaye ak lu ci mën ci am rek dimanche dinañ dem euh, fofé nga nga xamante ne moo ci diwaanu jàmm gën dinañ dem fi nga xamante ne rek moom moo di parcelle waaye itam dinañ ci ànd ak yéen ba stade dinañ leen wan li nga xamante ne rek moo daal di xew ci bile combat mu nekk nag combat du siècle sax lañ ko wax parce ne moo di lamb ji dafa teel a ubbi ci diggante ñaari yi nga xam ne rek réew mi nag ñëpp leen bëgg ñëpp leen di teewlu ñëpp leen di jox bopp ba tax na nag ni la waaye léegi rek dañuy dem fi nga xamante ni rek moo di stade municipal bu parcelle Parcelles Assainies fas yéene teewlu ki nga xamante ne rek moo di Modou Xarañ loo moom ak ay fansam moom ak ay andi jàmmam naka lay waajalee li nga xamante ne rek moo di bile combat Modou Xarañ Lo au micro de Xibaar TV HD El Hadj dinañu fa nekkal léegi léegi ñu li nga xamante ne rek moo di bile open presse ci li nga xamante ne rek moo di tolluwaay réew mi naam jóge nañ ci li nga xamante ne moo di élection yi naka faw ñu am divertissement li may wax naka nee naa ko combat bi dama siy def benn benn mise analyse balaa ñoo dem ndaxte Modou Lo naka doon roi des arènes Diagne daan na Ama Balde itam dugg na Pikine ñaari yoon jóge ci Ama Balde intervalle 3 mois euh, jëlaat ki nga xamante ne sax moom moo di matul sax 3 mois jël Boy Niang euh, daan ko itam mu nekk nag koo xamante ne chaque jour calme bi ñuy wax jeexal nam jeexalagul dimanche dina xam moom Tourkinda bi naka nee na leen na ko desee jël roi des arènes nee na gisante nag Yékini Yékini am na lenga yu mu ko jox ci ki nga xamante ne rek moom moo di moo Lo mu nekk nag combat bu dangereux combat bu nar a doy waar ku jul daanu euh, Siteu naka ne su nekk rek comme li xaw mer xalaatuñu wala sax gisuma fan nga war a genre Modou ba daan ko ndax gis nañ Modou ni mu def booy Niang gis nañ état de forme bi nga xamante ni Ama Baldé andi woon na ko Modou ni mu ko def Siteu ban état form la war a andi Siteu ndax calme la indi wala dafa war a xuuqal uh, ki nga xamante ne rek moom moo di uh, Modou Lo da ko war a merloo daf ko war a def Modou Lo Balla loole lépp nag nekk na mbir yu am solo yoo xamante ne rek nee naa ko dimanche ku juum di nga daanu waaye Siteu gare à ndaxte ki nga xamante ne moo di roi des arènes ah, yaakaar naa ni caay-caay gi ñuy wax ci Modou Lo heure bu bëree combat bu bees wane beneen facette bu bees heure bu Modou Lo bëree ñu gis beneen Modou xarañ loo comme son nom l'indique ñu gisaat beneen facette ci Modou ah, ki nga xamante ne mooy Siteu dafa waxoon saa Touba ne yow saa doo dugg fi nga xamante ne rek moom moo di. jàmm gën waxatuma la ak yor doo fa ñëw saa nag jël na gaal ba fekk ki nga xamante ne mooy Siteu ca diwaanu Diofior mu nekkoon nag lu doy waar loo xamante ne rek combat bi laaj na lu ne li koy firndeel nag waa jàmm gën nag nee nañ pare nañ waa parcelle 1 ba 26 ne ñoom du ñu bàyyi yotaa ci ki nga xamante ni rek moom moo di jëmm ji nga xamante ni rek moom moo di moo du Xarañ loo ndaxte saa su nekk rek ak euh, ni ñuy euh, àndeek moom ci li nga xamante ne rek moom moo di combat yi nga xamante ne Modou Xarañ Lo mi ngi koy euh, daal di mëne waaye dimanche rek la donc dinañ conserver wat li nga xamanteni rek mom modi di live wéyale ko ndax modulo Lo day continuer euh, di maintenir li nga xamanteni mon modi sa couronne en tant que roi des arènes wala modulo Lo gannaaw ba mu daanee euma seen ba légui si on se rappelle bien ba tey ki nga xamanteni sax mo nek le président euh, du CNG mudi euh, malik bu ngeen ma jàppalee ci santé bi fàtte patriote la dal en tout cas mon malik donc mo nek li nga xamanteni rek le président du CNG donc bobé si on se rappelle bien mon sauvé won ki nga xamanteni rek modi euma ëmma ndax dafa naroon wan li nga xam ne mooy làmmiñ bi ndaxte nee nañ ko ku Modou Lo moom bu la dóoree moom amaana moom buñ la teelal gàttandu moom fa nga jëm moom doy na waar Siteu ndax mi ngi sóor loolu lépp ndaxte itam li ñuy wax saa su ne euh, ambianceur la day neexal làmb Siteu lu làmb laaj da koy jox mais kalm day baax ci li nga xamante ne mooy combat bi donku teertu Modou Lo waaye itam xool Modou Lo anam ba muy bëree ndaxte itam yor na facette yoo xamante ne ni mu koy defalee ci làmb rek Modou Lo heure boo koy xaaree gauche day ñëw droite wala nga koy xaaree nord mu fël sud si on se rappelle combat yu mujj yëpp Modou Lo fi nga xamante ne rek moom moo di euh, parcelle donc Lac Rose lay ngemboo am na combat boo xam ne fa lañ toog di ko xaarandi ñu jékki-jékki rek ne nañ Lac Modou Lo agsi na te ñun pour ñun Modou mi ngi ci biir euh, kër gi donc dafa nekk mbër boo xamante ne donc dafa bari ay facettes moom da nga xaar gauche mu génn droite nga xaar ko milieu mu génn foo xamante ne sax foogoo ko woon kon tey dina ñëw foofee nga xam ne rek moo di ci stade municipal bi fas yéene jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñoo di ay fansam wanewaat Modou Xarañ Lo bi nga xamante ne yàgg nañ ko gis ci ñoom ak li nga xam ne couronne bi donc polémique amoon na ci li nga xamante ne rek moom moo di empereur boobee nga xamante ne rek Abdou Aziz Alen Ndiaye taxawaloon na ko nag ci diggante Balla ak ki nga xamante ne rek moom moo di di leen fay pendant six mois donc Modou Lo ne na focusul ci loolu moom lenn lay gis lenn lay conserver mooy couronne roi des arènes moom mi nga

Euh, cette fois-ci Modou Lo daal di koy conserver bobé ba légui rek tay ñu xaarandé bu baaxa a baax Modou xarañ Lo ay experts dina ñëw ñu waxtaan ak ñom ci li nga xamanteni rek mom modi di combat rendez-vous dans quelques instants euh, diwaanu fofé nga xamanteni modi ci di ca parcelle foofee nga xamanteni rek moy fièvu Modou Lo di jaajeufal ñepp ñi nga xamanteni ñu ngi doon suivre di jaajeufal internet yi nga xamanteni rek sa su nek rek. dañuy and ak xibar TV HD ci li nga xamanteni rek mom mo jëm ci li ni mel di len jaajeufal di leen.